jubóowuñu bu ma nee mbëri ahan kañ ténor yi sax laay njëkk wax muy Balla Gaye Lac de Guiers lan moo nekk seen diggante parce que yow dama la dégg quelque part nga ne euh, amuñu problème mais ñi dëkkul géejawaay mm-hmm. nekk ay seytaane ay xaw ma ñoo bëgg ñëw tas maa ko wax ñi fa dëkkul mais ñan ngay man maa ko wax maa ko wax ñi fa dëkkul ñan la non déglu ma rek kooku suñu may ma tuuti ma wax ah. mais kon yow kon dangaa ragal ñu fa dëkkul non defal ndànk dama lay expliquer da nga bañ da nga may man dafa am lu may ragal wala lu may tiit boo nee ñu fa dëkkul man dama lay wax man aw ma lu may ragal aw a koy wax dëgg la waaw dama man aw ma lu ragal aw ma lu may tiit man man aw ma lu ragal aw ma lu may tiit voilà loolu laa man kay kenn doom nga mënta muñ muy liiru mu yegg léegi yegg non ragal man lay ragal aw ma lu may léegi fii télé lañ mën a toog ngay wax naa ma ay ragal. waaw léegi. mais sa dernier combat a ngi koy gis. la yaa ngi wuli. la fi man boo toogee nag ci écran bi naa ma ay aw ma lu ma ragal. yow ngay géej way may pikin. ngay wax ma man loolu dama ci mere wuli la dama ci mere wuli. te pikin jur géej way. waaw waaw su pikin juree géej way way dafa dégonné de keroog. géej way ragal dëkk ñu fa. waaw mais ñu nga dëkkal peut-être nga ba ñu met moo tax nga dëkkal dama doon may laaj am solo may may yow dëkkoo ci gox di di jaxase gox bi da ngeen may may ma tontu ko biti ñooñu léegi ñan nga wax ni ñoom ñooy ñëw biir Géejawaay di ko jaxase maa ngi nuyu booba booy président 53 AIC muy booba xale bu baax ñu war ma sargal le 23 décembre. waaw d'accord may ma tuuti Lat Diop nekk président am ñu war ma sargal ci stade Ndiaye muy booba nekk président 53 ASC yi nekk. mais Lat Diop moom bu ko fi waa. non non non dañuy waxtaan rek émission bi toujours ba pare. ay xale ah, lan. mais Lat Diop Géejawaay waaw dégg ñooñu ñooy Géejawaay. ndax tey ji ñoom ñooy jóg di défendre couleur u Géejawaay football bi ci làmb ji ci fépp su taxawee daal dina naan dañ may sargal comprendre nga ah Euh, jël sunu mag ñi nga xam ne tey question bañ la jox ak may gis nga am na loom yaa ngi koy seetaan yaa ko posé question sa question bi bu ma ko defaay est-ce que dégg nga li ah. ba pare da ngeen may déglu so yow yow sargal ngay wax est-ce que mu coow géej waaw coow loolu nag damay yéen a dugg foofu moo tax ma dikkaale foofu tey ñu jël sunu ancien pouvoir sunu papa yi nekkoon géej way comprendre nga di leen ci ñaanal mu nekk guddi géejawaay. waaw d' accord loolu teg ko ne. parce que service commercial bëgguma ñu fekk. non loolu léegi man li ma la laaj. waaw riwoo ma ci euh, liiru. non li ma laaj biir géejawaay moo tax ma wax loolu. non non non mooy guddi géejawaay. guddi ah, géejawaay dafa tax ñëw tas biir géejawaay du ma ko nangu te du fa am maa wax loolu man maa ko wax ñi may xam nañ seen bopp amoo fit waaw merci jërëjëf amoo fit waaw merci jërëjëf maa ngi wàcc barke Serigne Fallou man Thiamas loolu yaa ma fit barke Serigne Bamba Mbacke amul fit li nga wax bu doon man la dama naan diw ak diw ak diw caa affaire yooyu jeex di dindi di wër looloo fi jeex ma xamal la benn affaire caa kii yàq da nga koy dénoncé kii yàq dina bàyyi da nga koy dénoncé dama lay wax moom dina bàyyi ndax xamul tax dina bàyyi hmm. ñoon kuy romandaat ñoon yu wax mi ngi may woo ñoon yu wax loolu dina bàyyi jarul may tudd trop xam na boppam xam na ma man xam naa. am na yoo xam ne jarul wax. non non waaw léegi léegi léegi yow ba ma waxee li may wax ne ñi nga xam ne ñoo dëkkul géejawaay bëgg a tas géejawaay. Mm. je arrête je arrête. te day arrêté par force nii mbaa ci naa wala ma génn lijjanti ko. donee sa arrêté mooy yow yaa koy arrêté. kon léegi kooku noonu léegi ba ma waxee loolu. léegi am lu ma koo xam ne fan fen day cuut ah. gis nga ma xamal la benn nopp. waa ku ci nekk benn nopp ñu jaxase la. ku ci nekk benn nopp ñu jaxase la waaye ñi am ful la kenn mënu leen a jaxase kenn. waa léegi am naa benn question soo xam soo nekkee benn nopp nag soo nekkee benn nopp. ah mën nan laa jaxase ak say say dëkkandoo wala ñu jaxase ak say biir kër wala ñu jaxase am naa benn question béti ah waaw waaye ñi nga xamee nañu am nañ fulla am nañ fayda am nañ matière kenn mën leen a jaxase ak seen nit waaw léegi laaj benn question voilà dama am benn question yow kenn mën laa jaxase yow man kenn man ku ma jéem a jaxase ak sama nit gis sama gis xam sama jikko liiru man xam nañ sama jikko man man awma lu may ragal kon Balla Gaye ak Lac 2 dañoo nekk ay benn saytaane dong mais ñoom waruñu nekk ay benn non danga may déglu biti danga may déglu maa lay déglu mais dinaa la laaj maa lay laaj dama ne la dama ne la dama lay laaj nga may tontu damay laaj ma lay tontu dama ne la ñu ngi koy dama ne la ñi ci nekk benn nopp laa la wax mm. di déglu mm-hmm. ñooñu duñ mën a jubóo kenn ndax lan la benn nopp lan waaye nit nit ñi ñi nga xam dañoo nit ñi nekkuñu benn nopp gis nga soo ñëwee ci man dama wax ci Balla Gaye dara dama naa la kaay woo ne euh, woo Balla Gaye ne ko kaay yaa wax lii mm. tey soo demee ci Lac de Guiers di wax ci ci ci Balla Gaye dara su la dëgër su amee fulla am fayda danaan kar Balla Gaye kaay diwoon fi lii la wax lii la wax comprendre nga ah nga dem ci guy gi ne ko kaay Balla Gaye moo la wax may ma tuuti rek may ma tuuti duma la may nag nga dem ci guy ne ko la dëgër moo la wax la wala Balla Gaye mu ne ko sa téléphone daa la ko kaay diw nee na yaa wax lii yaa wax lii yaa wax laa mm. comprendre nga mm-hmm. nga dem ci Alioune Seye ne ko diw nee na yaa wax la wala nga dem ci sa kees ne ko kii nii nii mu ne ko carte téléphone comprendre nga mm. loolu lépp du am waaye suq yi mm. coggu yi ku leen mooy tuul sa biir kër sax dañ koy tas sa jabar sax mën na laa tàqaleeg moom sa jabar sax mën na laa tàq barke Sëriñ Bamba am na question te xale yi am nañ fulla goo xam ne ak matir goo xam ñooxit ñëwal baax na doy na doy na question boobu nga di nga posé non dama koy posé ñooxit moo ni ma boo ñëwee Thiamas mayel ñooxit moom moo moo ko wax li ma koy wax léegi dama ko bëgg a posé question moom moo ko wax waaw dama la bëgg a posé mën naa la posé question waaye posé question nga naan mën naa la posé ah liiru kat fi ne dafa ànd ak tàngoor sax damay bañ mu dugal ma ko léegi damaa seetlu Lac de xam nga géejawaay da nga ni tey jii amuñu problème. Mhm. mais dama seetlu yeneen mbëru géejawaay bu ñuy ñëw mobilisation bi ñuy indi. waaw hmm. Lac de Guiers làmbam ju mujj ji. waaw tuuti nit lay indi. waaw ana waa géejawaay. Hmm. très bien foofu d'accord naa ci. ci làmb ji waaw xam nga foofu benn affaire moo ci am tey ci benn côté. waaw Lac. waaw moo deful la mu war a def. su defoon la war a def du demee noonu xañ na. maanaam lan la war a def waaw may ma tuuti ma ñëw ma. gis nga nit yooyu ngay wax noonu. Mm-hmm. tuuti nit yooyu. Mm-hmm. dafa am façon nit yoo xam ni tey yow mën nga jënd ay billets. Mm-hmm. Uh, ah jënd ay billets daal. jo war ko jox say supporters. teg ko ci ay loxoy nit. nit yooyu di ko jël di ko jaayaat. Mm. Ah. loolu day am. di ko jaayaat. dañ ko soxlu. non dama la jox exemple. di jaayaat billet di ko jaayaat. ndax tey dafay am ñoo xamee ne tey. su làmb amee dañuy ñëw ko ñu mbër mi ñoo xam ne dañuy ne ñoom ñooy dem ci buntu stade di jaay ay billets dañuy ñëw ko ñu mbër mi su comme xam nga mbër da ngay gis mbër moo xam day bën jënd ay billets day maye ay billets léegi su jëlee ay billets di maye billets léegi tey yow nga dëkk Guédiawaye nga dëkk man nga nekk ay ci fans club bii wala nga nekk fe ñu yëkkati billet jox la na la séddaleel nit ñi yow nga jëm jël bi comme ñu su dee boloogu billet nga daal di ñëw caamaas ah, ah, daal di ñëw jóge fële daal di ñëw nga jaay ko ko su dee billet cinq cent mille nga jaay ko trois cent mille su dee boloogu billet cinq cent mille la nga jaay ko caamaas trois cent mille caamaas dem jaay waat léegi nag ñooñu kon a ah, supporter nan la ñuy demee <laughs> wala nga jël billet may ko nit mu dem jël billet ba dem ba buntu stade jaay ko dëpp këram dem ñibbi. parce que mooy waral loolu lool day am loolu de euh, euh, mooy waral loolu. waaye am na suñu waaw non am na suñoo xamante ne dañuy dajale. lii ñooñu ñooy dajale seen xaalis. Mm. du ñu xaar mbër mi sax jox leen billet. waaw am na ci ay nit la dëgg waaw dañuy dëgg am waaw am na suñoo xamee ne. ñooy dajale seen xaalis wala ñu génne seen xaalis. dem jëndal billet jënd wut t-shirt sol ko dem di supporter mbër mi. mais nag dégg naa ko mu ne moom génn na jënd ay. voilà waa comme mooy loolu. mooy li ma la léegi nag mooy li ma la ndax ñi ngay jox billet yi pour ñu séddale ñoo ñooy jël billet yi jaayaat ko. voilà léegi wala ñu nit ñooñu dem jaayaat ko loolu dong mooy mën a nekk ah. léegi liiru. waa euh, kii dafa laaj. waa ci problème mu mobiliser ay nit yóbbu làmb. waaw man waxew ma foofu. man su may waxee mooy. waaw Lac de mhm. am ndam di ñibbi waaye mu mel ni timis gin gin gis ñu kenn nit ñi daju seen kër lan moo leen fa toog bu génn supporter seen bopp ba ñu def ko ko boole woon ci mbëri géejawaay loxo loolu ci ñoom la wala peut-être ñàkk juboo bi ci ñoom bëri non non booy bu loxee ñàkk juboo xam nga ñàkk juboo mais bëre moom moo am ndam moo daa moo am ndam. mais dafa mel ni ñëpp génn. mais dafa mel ni da ngeen a seppi Lac de Guiers. non non non bu la ay sepp kenn seppiwul la. Lac de Guiers wéet mais dafa wéet non non du question xam nga wéet lan moo koy waral tëju. soo tëjoo. ba pare wóoloo kenn. Ah. amoo ci kenn confiance. Ah. amoo ci kenn confiance. mooy waral loolu. loolu nag mooy raison bi. amoo ci kenn confiance doo wóolu kenn waaw doo wóolu kenn waaw loolu la rek. waaw dama la jox exemple dama la jox exemple dama ne la soo tëjoo non da may may ma déglu la. loolu lépp soo ko gisee lan moo koy waral. day am suq yoo xam dañuy nekk sa ginnaaw. di yëy sa nopp moytul diw tul diw moytul diw moytul diw moytul diw voilà léegi nag loolu sa amee mm. diw boobu ñu lay moytuloo pourtant diw boobu aka am njariñ ci yow dëgg la aka am njariñ ci yow dëgg la dana liggéey la sax yow loo xamul dëgg la moo waral léeg-léeg loolu di am tëju bi di am waaw ndax nit nag biti su may ñëw ci yow chaque jour su ma ñëwee nga di ma xool benn bët wala nga am na mooy koppatoog man damay téye sama bopp bien sûr d'accord damay téye sama bopp mais Thiat Seck moom mais lan moo ne Thiat Seck nag dinañu waxtaan ci moom <laughs> ko maa ngi ci yoon maa ngi ñëw Thiat Seck ñëw dinañu ñëw euh, euh, lan sa relation ak euh, ki nga ni moo di Père Diaw Père Diaw yaa rien sunu kilifa la sunu papa la juboo ngeen non mosuma am problème nag moom non non way ngir deretu Géejawaay moo ko yëngal moo ma yëngal. sama papa la sama kilifa la mosu amuñu benn problème wax dëgg yàlla. d'accord eh quelque part aussi dama dégg nga ne meeru Géejawaay bi. waaw euh, amul njariñ. maa ko wax parce que say say wax laay tibb di ko wax. maa ko wax attends Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara la wax de mooy meeru Géejawaay. waaw maa ko wax xam naa ne Ahmed Aïdara damay wax ta pareegu ma. waaw dama ne dama dégg nga ne meeru Géejawaay bi. amul njariñ ah, bi Ahmed Aïdara. waaw amulul njariñ Géejawaay. waaw xaaral. gën a teel parce que wax nga ni. gën teel waaw xumbal mu dem tànn béer mu dem sabar mu dem. tuur mu dem ëppante presse ma ne lan moo tax nga ne amul njëriñ da ngeen. très bien ñun la nam dem ko gis. da nga may déglu. gisul dégguñu ko. sa diggante yàlla barki Cheikh Ahmadou Bamba jotewuma moom dara. su ma ko fekkoon fii dama koy nuyu. billahi wallahi Aliou Sall mi ngay gis ma léeg ma di ko tudd di ko gërëm xamul tax ba mu fa nekkee maire. waaw xubu gi gis da koy gis xale yi ku ci am combat ñu wax ko mu jàppale la. amet na kenn mënu koo gis ba mu faloo. te dëkk Géejawaay waaw amet ay dara waaw te yéen ngeen fal ko ah, waaw loolu dafa grave déglu ma da nga may déglu waaye ñi ko fal ñi xam nga benn affaire moo am gis nañu ñun amuñu lu Géejawaay xale yi Géejawaay ah mm. mbër yi laa la wax tey tànn euh, open de presse xale yi suñu def open de presse moom danaan ñëw amet dara avant ba muy fal avant muy nekk maire xale bu ci am combat doo xaar mu wax la ñii ànd ak moom ñoo ko naan diw dafa war a bëre mu daal di dem mooy ñëwal boppam yëkkati jox la waaw boobu mi ngi campagne waaw déedéet boobu nekkagul maire boobu mi ngi campagne waaye bi mu demee ba falu mën a too koo teg bët mën a too koo gis doo ko woo ba jot ko te gis nga xale yi géejawaay dañoo am fulla booy mbër yi dañoo am fulla de ah non bu dee noonu la demee moom noonu la demee li mu wax ni man géejawaay la solo bu la wooyee da ngaa war a jël xale yi waaw da ngeen may may waay soo may bëggee laaj bu fay ku nekk di ma sor sor du ma xam lu may ay dara li mu xeex yëpp ak li nga fi wax nii xam nga ne ay dara li mu xeex yëpp waaw li mu xeex yëpp nga ba di xeexal géejawaay ba ba organiser benn groupe boo wax géejawaay laa bokk géejawaay laa bokk boobu amatul njariñ géejawaay ci laa bokk ndax méritowu ko liggéeyu ko fa boobu da ko doon campagne ah bon waaw dafa man Guédiawaye laa bokk boobu maa ngi woon ci biir groupe bi waaye damaa dugg ñu nekk si biir groupe bi boobu Aliou Sall moo nekk maire. ma dégg ñu koy sànni ay xeer. te amoon njariñ Guédiawaye ma ne ma roccee ko daal génnaat ci liiru mi Aliou mooy xaritam waaw da nga la Ahmed sama ah, xarit la ah kon loolu est ma tuuti may ma tuuti barki Cheikh Ahmadou Bamba billaahi <laughs> wallaahi laa la ma ndey laata benn affaire laa lay xamal Aliou Sall dafa amaloon njëriñ Guédiawaye mais parce que bu fàtte aussi liiru Alioune Sall dafa ànd ak pouvoir. wa d' accord naa. Ahmed Aïdara àndul ak pouvoir. d' naa. Ah. waaye ñu gis la. Hmm. nan la teg bët. la ñu dégg loolu dina ma jaaxal am na nu am na nu si benn booy boo xam ne tey may ma na benn booy boo xam ne tey. Mm-hmm. Guédiawaye la dëkk. Mm-hmm. pourtant Ahmed Aïdara seet si woon na ko ba muy campagne booy boobu am na komba ak benn mbër bu dëkk Pikine mooy booy bi nekk ci booy ñaar. nu tudd. Euh, booy bi dama fàtte turu booy bi. booy bi si booy ñaa la nekk. sunu booy bi doon bëree ki mu doon bëree mi ngi tudd caatu waalo. Mm. caat mm. Ah. booy boobu. ja amee dara jàppale ko de te ka dëkk Pikine ñëw na jàppale na ko moom moo toog di ko gërëm naan ñoom ñaar ñoo bëgg dëkk. ca île ba ki dëkk Pikine ka dëkk Pikine te pourtant booy bi dëkk Guédiawaye campagne na ko jàppale na ko. daana ko campagnal ñëw na fa loolu dara fetul comprendre mu dem jàppale ka dëkk Pikine ki dëkk mbër ma dëkk Pikine moo taxaw moo toog moo ko wax moo toog ci télé bi gërëm ko ne di euh, woona ma ba biroom yëkkati xaalis may ma Ahmed Aïdara moo jàppale mbër mu nekk. waaw ba dëkk Pikine waaye mbër mi nga xam moo ko doon campagne waaye campagne ko barki rasulullah loolu am na. mais mais Malick Gakou moom mi ngi mi ngi leen di jàppale Malick Gakou tubaarkàlla macha allah mi ngi jàppale xale yi mi ngi doon jàppale xale yi. Ahmed daal la deful dara moom mi ngi fal ci waaw waaw waaw waaw est-ce que yéen aussi ngeen ngeen def kuréel. dem rencontré ji Ahmed Aïdara. non lu koy rencontré xanaa koy rencontré da nga koy gis. audience la amul mënu koo gis. koy rencontré xanaa da nga koy gis. léeru léeru waaw hmm. bu dee noonu la waaw déggal na ma waaw te xam naa ni tam. waaw ah? man bu fekkee ni da ngeen am ay. réeróo man nag moom amuñu benn problème maa ngi di sama waay la fu ma gis daf may draay daf may kaañoo waaye man benn affaire laa xam man benn man géejewal moo ma ñor. man géejeway moo ma ñor man moo ma ñor xam nga benn am xale yi suñu amee ko man ñun ndax amuñu lu géejeway géejeway la ñuy tiitoroo lu nu am géejeway lañ koy yóbbu comprendre su xale yi amee combat comprendre ku ñëw mu jàpp ndax moom mooy maire moom la ko yàlla teg avant kaas yu bari waaw waaye dafa tuko nag da wax léegi da doon wax géejawaay moo changé loolu ah, boobu doon campagne daa bëggoon nekk maire léegi yàlla def na ko mu nekk maire da jàppale loolu yàlla moo ko fa teg muy maire loolu kenn mun ci dara yàlla la waaye ñun benn affaire su dee combat yi xale yi am ñaari ñaar dërëm sax mu yëkkati mu jox leen ko waa léegi sag la léeru man ah, li ah, ma bëggoon voilà ñu koy gis li ma bëggoon wax rek ba muy campagne Balla Gaye doon na fi bëre bëre na fekk Bombardier may ma tudd boobu bariwul ba tënk ko waaye ban liggéeyu maire lu liggéey maire bari bari bari bari bari bari bari xoolal lu liggéey maire bari bari bari bari bari bari saa mu nit ku ne sa gox nga am sa gox ngay tiitaroo waaw loolu dëgg la waaw liir gis nga am Balla Gaye am na fi combat mm. moo Bombardier mm-hmm. boobu nekkagul maire de boobu ñoo ngi waajal campagne mm. daa ñëw ba Issat la ñëw mm-hmm. Issat dafa ñëw ba Issat bokk ci lu groupement bi mm. boobu nekk nekkagul maire waaye ba mu nekkee maire kenn gisatu ko kenn déggatu ko kenn gisatu ko waaw te loolu c'est pas normal ñun géej way lan am géej way la ñu tiitaroo dañoo jëm ci ay bis yoo xam daf ñoo ñor dëgg la daf ñoo ñor ndax drapeau géej way la xale yi di yëkkati kuy tiitaroo géej way mbaa ngay sagoo géej way la nga nekk maire te gisuñu su bopp dañ koy taxaw dañ koy wax dëgg la dañ koy wax. amuñu may la nga naan sa lewal ñu may ko mu naan mu soufflé un peu man danaa am lu ma expliqué waaw waaw ko may mu naan ñu ñëw ci beneen point. Hmm. ñu ñëw ci li nga xamante ni gis nga xale yi ma la doon wax léegi. baal baal balaa caat sekk baal ma daane li may wax. xale yi ma doon wax léegi dama koy expliqué rek dama dama bëgg.